liggéey boo xamante ne ñëpp war nañu man ko parce que affaire diine la diine euh, kër diine yi euh, pratiquement ñoo représenté état si domaine yu bëri si biir population bi donc yar askan euh, dafa nekk lu métti te koo xamante ne dafa bàyyi dundam yëpp jegale ko xale yi xam naa dimbale na état bi si lu bëri donc Madina Daffé te yaakaar boo xamante ne teg nañu ko si xalif bi mooy tey xalif Ba Mansour Daffé parce que moo utu ñoo xamante ne lan dafe surwa ba euh, El Hadj euh, ba surakata dafe koo xamante ñoo xamante ne yëpp lakk nañu mais macha allah euh, liggéeyam rafet na ba ñu bëri ñu ngi yaakaar bu am am yaakaar si si cité bi donc au moment où état bi mu ngi wax modernisation daara yi

vraiment pour la modernisation daara yi ñu ngeen leen dimbale doole leen pour que yar bi mu gën euh, oyof si seen loxo.